activiste je répète bépp activiste bu bokk ci benn parti politique nekkutoo activiste partisan mais nag mën nga nekk un sympathisant comme ni ko Karim di defee bokk ànd ak Ousmane Sonko wala ànd wala nga ànd ak keneen ak am na benn waaye Iliman euh, Thiam su ma juumul xaw ma Ndiaye Iliman Ndiaye moom activiste la maa ngi ci côté euh, président de la République Macky lu ñu wax mun ñu contrer donc man ñooñu noonu jàppee ma leen comme ay activiste mais damaa jàpp ne ñooñu noonu xëy na ay partisan rek xam nga. waaye képp koo xam te ne tey gis naa ne yaa ngi am benn position mooy lan fexeel tout possible ba yow préoccupation askan wi yaa ngi si taxaw guddi ak bëccëg askan wi ñu amul carte d'identité nga fexeel tout nga nga nga kaasale nga am seen carte d'identité extrait de naissance comme noonu dëkk yoo xam te amul amul amul hôpital te foofu dama ciy taxaw tuuti waa Noto dëkk la boo xam te ni tey dëkk bu am potentiel économique la dëkk la boo xam te ne dëkkul liggéey lañ maa ngi leen di plaider di leen plaider fois pour que dëkk boobu mu am hôpital parce que foo bëgg a faju tey di nga am ay difficulté pour faju foofu noonu dëkk boo xam dëkk baykat la fa laa jógee fa laa nekk dëkk baykat la nit ñi pour ñëpp dañuy bay dëkk boobu amuñu hôpital pendant deux ans ngi nii amuñu fu ñu fajoo ay clinique ñoo fa nekk léegi nag loolu nag dama bëgg état du Sénégal mu taxaw si parce que maa ngi gis ne ñoo ngi indi waaj inauguré ñoo ngi waaj posé pierre fële si Tivaouane pour mu am beneen hôpital muy deux hôpital te c'est pas du tout normal si mun a am ñaari hôpital ba pare Noto amul benn hôpital donc loolu dama koy plaider encore une fois pour que Noto Guy Jama mën a am hôpital ñun nag loolu mooy suñu taxawaay tey dëkk bu amul hôpital ñu plaider ba nga am hôpital dëkk bu amul courant ñu plaider ba nga amul courant dëkk bu amul ndox ñu plaider ba nga am ba ndox mais pas di taxaw di tagg di di xalamal benn homme politique